salaam. ñu ngi am mbégte bu baax a baax ndax bu ñu ñëwee ci tànt bu mel nii fekk fi sëtu Serigne Touba fekk fi sëtu sëtu borom daaru ban yëg-yëg la am ak taxawaay bu mu am tey ci bésu ba nekk juddu yonent bi tëdd ba lay sant bu baax rek di sant Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu di nuyu mboolem ñi nga xam ne ñooy bi ñëpp rek di ziar di jiite bu sëñ Mountakha sëñ Touba Xaadimu Rasuul mu am ko ni mu ko bëggee di ko ñaanal moom sëñ Abbas Mbacké mi nga xam ne mooy xalifa Maam Cerno Birahim di santaat bu baax rek di wax ne rek di siyaare sa kilifa sëñ Seex Umi Mbacké moom Seex Moodu Faadal di sunu wóolëree di sunu lépp di sunu waajur la koo xam ne guddi go guddi la goo xam ne si tey ku ko màggal ah war ngaa santaat yàlla bu baax ndax kenn ku ne xam na ne jamono bi fu mu toll ak contexte bi kon sunu yàlla boolee ak Serigne Touba mi nga xam ne tey daanaka. laxasaayu ci liggéey bi li ci ëpp ay ndaw lañ wax na ko léegi fi jamono toll naka nga mën a jiitee mbooloo mi ndaw ñi ak ndaw kenn ku ne xam ni na entente boobu am na jaxasoo boobu na saafonte boobu ma àndee ak ndaw ñi lenn rek la yow dara ëpp la ci damay ba tey yaa ngi yow man la woon ndax man sama diggante ak yow damay damay lay i rek sëñ Cheikh bi Mbacke mi nga xam ne mooy sa wasila moom xam naa ne seede la sama digganteeg yow ndaw ñi dama ànd ak ñoom lenn dong la mooy loolu alxuraan wa daahiyan ilallahi bi ismihi wa siraajan munira mooy ñu dañuy wax ne ay ambassadeur Serigne Touba rek la ñu ndaw ñi nag li ñu ànd ak ñoom mooy bëgg leen a gindi teg leen ci yoonu siraatal mustaqiima ànd ak ñoom wan leen lan mooy Serigne fi ñu teg seen tànk ndax ñoom liy solo si su ñun mooy ñu tarbiya leen tasfiya leen tarqiya leen ndax loolu la fi Sëriñ Tuubaa rek indi moo tax boo gisee ànd bi ñu ànd ak ñoom dañ leen a jàngal yar leen ñun boo dikkee ci kër gi loolu rek nga fay fekk mooy di leen jàngal xasida Sëriñ Tuubaa yi di leen yar comme ni Maam Cerno Ibra Faal daan yaree muy jàng ak liggéey rek sëñ borom daara moom kenn ku ne xam na ne du bokk ci moom boo néewal sa sariha wala sa aqiqa wala ñàkk a nangoo bañ a liggéey ku bokk ci borom daaru bu képp du moo tax ndaw ñi ñu àndal ak bi nga xam ne ñoom la ñu àndal muy waa FDI fédération daaru international yëpp mu doon mel am na solo lool fi may jeexale rek noo ngi gis fan yi coow li am ci àdduna wërngal këpp ci diggante président France ak caricature yeeg wax ju tekki ne wul yi nga xam ñu ngi koy yëkkati di ko teg ci borom bis bu tey jii yow en tant que nitu diine en tant que sëriñ Serigne Touba en tant que tey représentant l'islam ban gis-gis nga ca ban déggee nga ban message nga ciy lancé. dama xam ne rek loolu alxuraan naan hal yastawi lazina yaxlamuuna wa lazina laa yaxlamuuna mooy Macron dafa xamut rek xam nga nit ku xamut xamut ak moom kenn mënut a xeex ak moom ndax yonent moom yàlla koy fayu kon jërëjëf xeex la jërëjëf xulóole. xanaa dañuy tàllal loxo rek nga defoon ñaan rek ñu daal di koy ñaan ay eh, waxtu déwén yu bëree bëree bëri.